Euh, euh, li doyen wax dama ci jàng nekk ba terminal euh, après examen wala compo bu njëkk bi ñu ñëw indil ma ay feuille de préinscription <laughs> ok c'est ça parce que temps boobu je pense que que, que disons les meilleurs de chaque de chaque terminal dañ na ko doon jox mm-hmm. ñu ne ma rempliral bon alors j'ai rempli. Mm-hmm. je me demandais université de Grenoble comme de premier choix xam fac de droit ak Pau comme deuxième choix <laughs> bon voilà ñu jël ma après vraiment bon nga dugg ci système boobu. Mm-hmm. bon une possibilité la nga ne bon lu tax duma ko def après dem. Euh, jàng ñetti at ñu ne la est-ce que dama bëgg ngaa dem fee voilà ñu kii donc. Euh, effectivement am na ci la loo xam ne euh, ni ko doyen bi waxee euh, bon ay opportunité la mais système bi tamit moo la koy may mais nag beneen affaire bi jàpp naa ne disons Cheikh Anta Diop du doon na faral ci yenn conférence mi bi muy wax par exemple ni Égypte antique meloon comme nekkoon balluwaayu xam-xam di xëcc maanaam ay grec mm. foo xamante ne bi foofu fa la nit ñi di jo fooñ daan roote waaw maanaam loolu yàgg na ci àdduna tamit mm-hmm. loolu yàgg na ba suñu mag ñi tamit am na ñoo xam ne gànnaar dañ fa daan dem mm-hmm. donc loolu sax mën nañ ne euh, am na dëgg la waaye léeg tamit liy ëpp solo mooy nit kii su demee root feneen tamit ginnaaw bi mu rootee fii euh, bu njariñ manee juddu mu man ko tamit bokk ak réew mi nga xam ne fan la cosaan waaye nag foofu nag dafa am jafe-jafe ah waaw ndax euh, tey par exemple na man nga jàng ba pare am kii am say diplôme maa man par <laughs> exemple laata may pare école du barreau ci la ñu ma recruter <laughs> nga xam ne ne dama jot sama résultat un vendredi 21 janvier. Mm -hmm. le lundi 24 janvier ma commencé liggéey. donc sooy may wu ma. nekk fa def fa sa def fa sama stage de stage du barreau ñu recruter ma jox ma ay possibilités. Mhm. wax dëgg yàlla euh, quand même assez jeune bi ma amee deux trois ans d' expérience ci la ñu commencé jox ma dossier. yooyu dem cour suprême du Canada. Mhm. nga xam ne mooy cour bi gën a rëy dañ koy cité fépp ci àdd àdduna bi joxuma dossier yu toll noonu responsabiliser ma ci wàllu réforme permanente yu ñuy def foofu tamit ñu boole ma ci. Mhm. wax dëgg yàlla duñu la duñu la teqantal la ci sa liggéey sa xam-xam da koy mën a mhm. génne. da nga koy mën amul parce que même man na sama liggéey moo xam comme bii ak bee même sama directeur du moo may wax. que comment dire plaider lii bon dinañu ci nag discuter dinaa ko disons consulter consulter samay collègues mhm. pour ñu am pour par exemple xalaat yi na gën a ball gën a mhm. baax mhm. mais à la fin man ak sama code de déontologie ak samay obligation euh, disons ma xam ko mais aussi tamit dañu may contrôler dans le sens où boo defee lu jaaduwul nit man na porter plainte contre yow tamit mm-hmm. foofu par exemple même juge bi attekat bi juge bi justiciable bi man naa déposer une plainte mm à mm-hmm. déontologie mm -hmm. bon waay ouais, c'est bon comme nag c'est encadré c'est, pour bañ ay abus et effectivement bu dee da nga poursuivre juge bi simplement parce que dafa àtte nu la arrangé wul maanaam soo ko defee benn yoon doo ko defati. Mhm. parce que yoon moom dina dal sa kaw mais juge bi danga ni muy àttee euh, euh, comme di nit noonu la nit ñi tamit amee bët tamit ci moom di ko xool mhm. ci biir salle de cour ma nan lay comporté woo en dehors de la salle de cour tamit ndax moom mi nga xam ne moo ngi naan respecté leen la loi ndax mi ngi respecté la loi dans sa vie privée mmh, dans sa vie privée exactement exactement <laughs> c'est-à-dire foofu noonu juge tu es nommé la li ñuy wax durant bonne conduite mm-hmm. mais bonne conduite nag du exécutif bi moom moo koy décider mm-hmm. seen bon équivalent au conseil supérieur de la magistrature boo defee plainte euh, exécutif bi que disons du siège c'est un comité de juges euh, comme d'avocats Euh, de membre de la société civile ak euh, ñu segg mm-hmm. ñooy former le conseil de la magistrature ñooñu ñooy xool de façon indépendante juge bi am na am na le droit à l'avocat ainsi de suite ñëw ñu xool ndax dafa yuuxu ah, ah, maanaam si kaw nit hmm. loolu c'est inacceptable parce que tamit juge da nga war a joxe le bon exemple sëñ bi mm-hmm. da nga war a am un comportement boo xam ne yaa war a gën a lu sax waaw mm-hmm. ndax booy digle nag cangaay war nga sangu ba noppi mm. il ne badine pas là-dessus c'est maanaam nag seen système noonu la ñu ko tëralee juge bi ci boppam moo la gën a ragal sax euh, maanaam def na kaso dul noonu ndax li ñu mën a baal keneen gi juge bi euh, waaw euh, juge bi maanaam kenn nag du ko baal mm-hmm. parce que da dañu naan kii xam na ko ndaxte même sax boo xoolee ci alxuraan tamit loolu la yàlla la wax maanaam ñi xam waaw waaw waaw ñi xam tey ko ak kii ak ñi xamut hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna donc <laughs> yooyu principe yooyu xam nga li ci am solo mooy da ngay gis yi nga xam ne dañ koy bokkule nga xam ne lii ay principe wu àdduna la donc foo noonu la seen magistrature mel nga xamante ni bii euh, juges yi ils sont nommés durant bonne conduite d'accord waaw léegi nag euh, ci ci loolu nag ci fuite de cerveau bi lañ nekkoon bon ah après nag c' est vrai que à un moment donné bëgg nga indil la dara Sénégal mais tamit wax dëgg yàlla am na loo xam ne boo ko gisee. xam ne tey boo ñëwee tamit maanaam que disons euh, liberté bi nga war a mën a am. Mm. ba sa xam-xam nga koy jëfandikoo du caaga ne yow yaay dogal mais au moins nag que ñu permettre la xalaat yi nga xam ne am nga ko ak nga mën koo wax. say gis-gis. waaw xam nga nga xamante ni bi yow dañuy nangu ne yow nekkaloo fi pour parti au pouvoir. Mhm. danga nga nekk nga pour dëgg. Mhm. xam nga nga xam ne par exemple man man ci sama liggéey kenn du ma wax opinion bii ngay joxe ak lii. te lii ngay plaider ak lii. Mhm. yow nag yaay xam sa bopp nag xam ne tamit ñaari xalaat ak te ñett moo gën. et puis tamit par exemple tey soo plaider fekk concerté woon nga ak say collègues. su ngeen ñàkkee bon fardeau bi yéen ngeen ñëpp wax ba koy bokk. mais boo demee ak sa bopp kese tamit bis boo la moom ba dañ lay seetaan donc tamit yooyu tamit kii la donc euh, faw tamit Sénégal tamit lu ñu wax fuite des cerveaux ñu organiser ko tamit d'une façon telle que doo ñëwaat nag. ñu bëgg laa nag rëq sa digg wala nag di la dugal ci affaire yoo. xam ne est-ce que jéem nga est-ce que jéem nga ci ay jamono. bi nga amee sa lijaasa wala laataa nga koy <coughs> nga jéem a xool naka ngay ñibbisiwaatee sa réew pour liggéey fi waaw am na waxtaan yu ma waxtaanoon 2019 ak euh, ñi jiite woon justice bi fii ministre de la justice bi fi nekkoon euh, waaye bi ma duggee ci palais de justice yi <laughs> xool doxalin yi xool réellement boobu toog naa fi maanaam na ñeenti weer jëm kaw ba nga ngir observé parce que tamit bala ngay dugg ci mbir tamit. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. faw nga faw nga càmbar ko bi ma xoolee wax dëgg la justice bi ni muy doxeek yooyu. Mm-hmm. Euh, dama xam ne pour ma soreek ñoom <laughs> waa mën naa jafe moo tax après dama dama bàyyi noonu voilà waaw mais mais par exemple su ma gisoon cadre boo xamante ni bii respecté nañu l'état de droit et tamit euh, disons politique bi du jiital wàllu justice tamit bon effectivement li nga mën a defal keneen mën nga ko gën a waaw mais bor bi moom foog nga fay ko parce que ñoo la formé ñoo def ci yow xaalis non non non c'est parce que boor bi moom foog nga fay. mais est-ce que en aucun cas nga fay. yéen a ngi koy fay ñu nekk ci <laughs> koy fay d'une autre manière. exactement parce que ñoom ñu ngi liggéey foofu ñu nga investir ci dëkk. c'est ça effectivement. waaw waaw loolu moom. wax rek <laughs> ah, man kay man kay. pexe amul waaw hmm? Hmm? non li wax ah, ma wax noonu dafa am. des gens maa ngi liggéey looy nit tamit. Ah, waaw ndax du loolu rek laay def man dama yàgg a nekk tamit maanaam xeetu bawol bawol <laughs> ba bi ma nekkee fii di jàng. grand de vacances dama daan jaay ak di liggéey. loolu donc donc loolu la tamit.